كلي بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين والشكور كن يا ولي يا قدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أزبد فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن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 kon ñu ngi fii si Kellel Diop Kellel nag li tax ñu teew fi tey mooy màggal gi nga xam ni moom lañ baaxoo def di màggal sancub dëkk bi sancub dëkk bi nag Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo joxoon ndigal Ahmadou Xureja boole woon ko ak taawam ba Cheikh Mouhamadou Moustapha ngir ñu sanc dëkk bii di Kellel ñu sanc ko si atum 1925 kon sancub dëkk boobu moom la ñuy fas yéenee màggal tombeeg tey jii 2024 tombeeg la 11 janvier kon ñi ngi nii si buntu dëkk bi bu ngeen ñu toppee nag danañ dugg si biir dëkk bi fas yéene ànd ak yéen liggéey bi li jëm si jàngu alxuraan mi jàngum xasida yi ak lépp dana leen toppal loo xam ne information bu am si dëkk bi rek dañ ko génnee waaye mbooleem bagage Sëñ Tuubaa yi nga xam ne am na fiit dana leen ko toppal kon lii mooy deuxième édition bi kon bu ngeen ñu toppee dana leen ko wan kon tey jii mooy màggalu Kellel Diop la 11 janvier 2024 wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. man yaa zaman أذبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظنا به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسليا من حمدا قد الصلاة والسلام أبدا لهما كما أغزيت من لم يعبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء والرسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي لمن دغتم ما يسره بلا yéen a ngi ñuy seetaan ci site bii di tuba media ñoo ngi fii ci Kellel job tombek 2024 la 11 janvier muy bis bu am solo bo xamni mom lañ def fi di magal magalu Kellel job magal gi nak di ndigal lo xamni Serigne Touba Cheikh ahmad bama Khadim Rasoul mo joxe won ndigal li ndigal lim joxe nak moy sancub dekk bi la joxe ndigal atum 1925 joxoon ko Ahmadou Khourédia boole won ko ak taawam bu tedd ba Cheikh Mahamadul mustapha at momi nak tombé ak 1925 mom lañuy ñuy diko di kon sancub dekk bi lañuy magal waye nak dajé di jàng alcorane ak xasida ak askar bu way man ngir ñu fatiliku mag ñi ak ñaanal ci julli ji nekk bar sax motax ñi ngi ni tok ak Serigne ouna ndjay mom Serigne Cheikh Fassila ndjay xewal nekk fi si dekk bi di jàngal alcorane nekk ci éducation critique bi di soññi ndaw ñi si alxuraan ji kon su ko defee kàdd gi moom la ñuy jox sëriñ Cheikh Maram Ndiaye moom la sëriñ Cheikh naa wax ni nañu ko jox mu def ab soññee jëmee ko si alxuraan ak soññiwaat ndaw ñi ak mbokk yi nga xam ne ñoo ngi ñuy seraan kon bu ko defee bisimilah sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Ndiaye. di ñaanal jullit ak képp koo xam ne yaa ngi seetaat site bi rek yàlla defal la tawfiix ak jàmm ak mucc àddina ak àllaaxira waaye di wax ne kàddu yi xam naa du bari dañoo jot ndigal rek pour soññ donga yi ak waxtaan ci tuuti rek ci alxuraan ji nga xam ne moom la fi sëriñ bi jàngale ndax alxuraan dafa nekk lu màgg loo xam ne waxi suñ boroom subhanahu wa taala la yàlla dara koy wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daal ko fonk lool doon ko jàng guddi ak bëccëg mook saxaaba yi ak mboolem gaay yu baax yi ba ci sëriñ Tuubaa mi nga xam ne mom lañu yàlla booleel mu nekk suñ njiit fii ak fañ jëm mu nekk suñu wasita ci diggante yàlla ak yërënte bi ak mboolem lu baax suñ tuubaa rek lañ jël teg ko suñ diggante da ko fonkoon lool ba tax daan na wax ne anam léppam alquran la ana na wax kanzil kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab la jamcu fiddatin wala jamcu zahab sama màngasee bi nga xam ne man sëñ bi moom laa am di ko ndamoo alxuraan la ak xaddis waaye nekkul xaalis nekkul la ne nit te it fonkoon na ko lool daa ko tagg guddi ak ak bëccëg yaa kitaabal karimi anta xabibi wa xalili xablu xablu tabibi daana ko wax lu bari alxuraan mooy sama xarit mooy sama soppe mooy sama médecin mooy sama wéttal bari na ab yoo xam ne da koy tagg kon alxuraan ji nga xam ne ñi ngi koy jàngale ci dëkk bi ñu ngi soññ rek mbooleem kuy seetaan sit bi rek mu gën ko fonk gën ko wagar gën a fonk it ñi koy jàngale ndax alxuraan mooy nekk li gën ci àdduna amul di ko gën ci àdduna ndax mooy wax yàlla kon képp ku ci xëy di ko gont di ci gontu jar naa fonk jar naa teral moo xam kuy jàngale la moo xam kuy jàng kon waa dëkk bi nan am nan sant yàlla ban amee tawféexu dëkk bi am daare alxuraan ndax alxuraan nekk ci bërib nekk ci barab dana waral suñ borom musal barab booba ci ay balaa dana waral yërmaane yàlla di fa wàcc dana waral ñu am mujj gu rafet ndax alxuraan moo tool noonu kon war nañoo fonk daare ji fonk yi sëñ bi ki nga xam na moo yor daare ji te it ndaw yi kay jàng ñu ngi leen di soññ bu baax ne alxuraan moom la fi yëg yaa ngi ciy ne amoo amoo tardement maanaam dara raw la ci àdduna ndax loo boo ko bàyyee loo di ko wuti ji it la nga bàyyi moo ko gën mooy alxuraan te boo ko jàppee mbooleem li nga xam rawoon na la suñ borom dana la ko jox te it dara du la raw xanaa yàlla dala koy dencal lek yàlla dala koy dencal lek kon nañ gën a fonk alxuraan gën a xam lim doon gën a xam maanaam valeur ak maanaam xiima bi nga xam ne am na ko ba tax képp ku ci xëy di ci gont ñu man koo fonk comme ni ñuy fonkee alxuraan te man koy dimbali ci ay xeeti matuwaay ay xeeti dund ak lépp rek loo xam ne kuy jàngale ak kuy jàng dana ko ajowoo lu ca way def xamal na sa bop rek mom ko defal way defal kenn ken da akhwan moy mbanga boo bo ne ku ci denc rek ëlëk yam xam suñu borom dana la jox lang nga ca dégaloon ak nu mën toll kon nan ko fangu bax bax do wax ne ñu ngi tuub bax dañu xawé télé wax kon kaddi ñi ngi koy tuub di wacce fofu rek di wax alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barakaatu. ñi ngi leen di nuyu nuyuwaat di leen siaré di leen ñaanal jaam diko ko seen ñi ngi ñi taxaw ak Serigne Cheikh job Kellel di leen koy xawon ñi ngi ci magal gi magal gi ñuy magal sancub dekk bi si ndigal loo xam ni sëriñ Tuubaa si Ahmadu Bamba Xaadimu moo joxe woon ndigal ñu sanc dëkk bi joxoon ko sëriñ Ahmadou Khourédia boole woon ko Cheikh Mouhamadul Moustapha fii ñu taxaw si guy gi di cosaan ak kàddu nga xam ne moom lañ jàkkaarlool ak teen bi kon balay loolu lañu daal di jox sëriñ Cheikh Diop Kelle rek mu daal bi leeral ñu guy gi ak teen bi leeral ñu tamit gi ni nga xam ne noonu la sëñ bi joxe woon ndigal rek si histoire yi rek ñu leeral ñu ko kon bu ko defee bisimilah sëriñ Cheikh kii ñi satan maa ngi leen di nuyu di leen ziar leen baal wax te di leen baal di ziyaare itam mbokk yi ma séq bi sëñ Xaadim Fall ak sëñ Modou Yàlla di jiital ci nuyu ak ziyaar yi sëñ Muntaxa Mbàkke xalifa njaboot bi di ziyaare itam kilifa dëkk bi di sëñ Daam Diop nga xam ne mooy xalifa bi moom Amadou moom waaye di ziare itam euh, Baye Mor Diop mi nga xam ne ñoom moom lañ fi teg mu nekk leen fi doon chef de village bi di ziare mbokk yi fi teew yëpp euh, sëñ xaar mi ngi lay ziare wat baax ni nga ko waxee léegi tey ñoo ngi fii ci Kelel Diop ci bis boo xam ne yaakaar naa ren la ñaareelu édition bi daaw lañ ko tàmbali woon xëy na am na bis yu ko fi jiitu woon. waaye bis bi moom daaw lañ ko sosoon waa dëkk bi itam ñoo ko sos rawatina ndaw ñi lépp rek ngir dundal mbokk gi dundal dëkk bi waaw loolu moo waral ñu sos bis bi waaw biñ ko sosee itam ñu wutal ko yël la waaw yël la ji itam mooy kuy màggal ku ne am na looy màggal kuy fàttaliku ku ne am na looy fàttali waaye dañoo tàmm woon nag di fàttaliku ak màggal li ñuy tuddee sancub keleel ndax euh, bu ñu waxee loolu xëy na mën naa am ñu mu jaaxal waaye ku xam cosaan li ko sañc da nga xam ne lu mat a màggal la lu mat a fàttaliku la ndax fàttaliku dina tax euh, ñu xam dëgg-dëgg valeur dëkk bi dina tax itam kenn ku nekk moo bokk ci dëkk bi nga xam li nga am lan la ngir nga mën cee mën a bàyyi bàyyi bàyyi xel. waaw dana ñaax ndaw ñi itam ñu xam ne amuñu fu gën fii ñoom ñu fi bokk waaw ndax euh, bu ñëwee ci biir waxtaan incha allah xëy na du ñàkk lu ci leer xam naa bay dog ngant rek ci ñi may seetaan ndax dëgg dëgg maîtriser wuñu sax histoire bi dëgg xëy na dama fee sës rek ah amu leen keneen ku ngeen tàllal micro bi ngeen jox ma ko waaye jàpp naa ne am na ñeneen ñu ma gënoon a placé pour gën cee mën a wax kon ñu xam ne Serigne Touba radiyallahu anhu bi yàlla dogalee mu gis pàkk bii di Touba xam ne 1888 la ko sanc bi ko yi tam yàlla da ko natt woon dëkku fii lu may juróom-ñaari at ndax 1895 la fi jege dem Mbacke Bari bu ci jaayante bi dem ci géej gi donc kon juróom-ñaari at kese la dëkk Touba mais Touba nag mooy dëkk bi ko gënaloon ci pàkk yi ci kaw suuf yëpp yàlla itam tànnaloon ko Touba may ko ko. waaye yàlla nattoo ko itam dëkkul Touba. Euh, Touba nag di dëkk boo xam ne bi ko sëriñ Touba di yi tam la ma waxoon rek mooy da koo sanc rek ngir jaamu yàlla ak liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo waral mboolem dëkk yi nga xam ne itam ci ndigal lañ ko sanc wàccuwaay woowu Touba am rek moom la ñu am ndax sëñ Touba bi mu sañee Touba nekkoon na àll bu yaatu waaye tërëwul ñu sosoon ci moom di ak njaboot itam kenn ku ne laawoo ba nga ñëw mu yebal la fi barab bala suñu fàll mu yebal ko ndindi ma dem sanc foofa ma woon na ko ñëwal ci sama wet mu yebal suñ ma sàmm mu dem sanc daaru karim eh, yabal suñu Cheikh Mamadou Moustapha mu dem sanc tundóor donc kon foofu la nga cey jànge mooy sëriñ bi ci xarañ goo xam ne ne ñoon na ko nga xam ne sax même bu dul wàllum baati nag yooyu rek mais ci wàllum stratégie ci wàllu dëkkuwaay loolu yëpp ay stratégie la woon ngir gàttandu màgg gi nga xam ne Touba mi ngi koy màgg waaye itam ngir suuf si itam fenn fu nekk am ñu fa nekk mën koo téye loolu jàpp naa ne moo waral stratégie boobu kenn ku nekk mu am fu mu lay bal nga nekk foofu nekkal ko fa nga xam ne doo sori Touba lool man ngay lekk ñëw di julli si àjjuma wala lu xew nga naan ko yëg fi saase mën a ñëw Touba donc loolu rek mooy cosaanu sañ ci dëkk bi ndax Amadou Makhourédia mi nga xam ne moo sañ ci dëkk bi Euh, donon kenn ci jambaari dembu yi ci la xewon te moy ñi fi newoon dembu di bañ ak notel ci la ko yalla boole loon waaw la jor la te itam bokon na ci ay lieutenant wala ay general am nga xam bu xare ma sa nam bokon na ci ñuy ci kanam lool bu ci te loolu ñu doon def itam bañ notel rek ak bañ ko tok seen ko moko ko waraloon dogal mu and ak magam ju bax jooju di la jor ci loolu nga xam ne booba loolu moo fi newoon bañ xeetu bañ googu moo fi nekkoon waaye sëñ Tuubaa li yaraan bi mu ñëwee moom dafa indi lu bees te mooy dafa ñëw fekk na euh, Cheikh Omar Foutiyou Tall ma ba jaxu ba ñeneen ak ñaan ñu baree bare jël nañu ngànnaay ngir xeex pour dëgëral lislaam pour jële fi nooteel waaye moom bi mu ñëwee dafa indi leneen lu bees beneen xeex bu bees te mooy dafa indi rek woote yoonu jàmm sabilu salaam yoonu jàmm la woote te mooy day xeex ci xam-xam ak ragal yàlla comme ni mu ko waxee ci xaside yi moom yoon boobu la jël nga xam ne liggéey na li muy liggéey ci tënk te dara tuurul bal tàkkul jaasi jógut loolu nag moom xëy na suñu borom moo ko jagleen waaw ba ñëpp nangul ko itam te lu tubaab yi bëggoon ci moom itam amu ko te itam dafa bàyyi woon boppam tubaab yi itam am lépp lu ko tubaab yi mos a wax rek exécuté na waaw ah, buñ ne ko do yendu du yendu buñ ne ko do fanaan du fanaan xana lu may mu ñak dëppoo rek ak ndigal suñ borom waye mom dafa dafa dafa dafa dafa joxon bopam rek tuba bi hmm. ginaaw mi ngi seen loxo manam fuñ ko jëme rek mu jëf mo waral déplacement yu bari ngeen di dégg hmm. yu bare bare bare bari donc kon lolu mo waral euh, mu jankante ak yone mu jànkonteel hmm. amul mo xëy nak bu yalla dogalé sëñ tubaab feñ ci kaw suuf wax deug yalla ñepp nangul ko wala ñi ëpp boog nangul ko moom itam mu bokk ci ñi teel a nangul sëñ Tuubaa ñëw ci moom jox ko boppam waaw comme ni ko ñëpp defee rek ni ko magam ñu baax ji defoon la Joor ak ñeneen ak ñeneen bi mu joxee boppam sëriñ Tuubaa itam sëñ Tuubaa ci boppam itam xam ngeen ne yàlla da ko mayoon daanaka ci jamonoom fu lu baax nekk rek dafa dem jëli ko waaw maanaam fépp fu leer nekk rek maanaam xëcc na ko mu ñëw ci moom. xëy na amul ma ko yàlla dafa dogal ci mu bokk ci ñooñu nga xam ne am na lu suñu borom denc ci ci ci ci ci moom moo waral euh, ci li ma xala ko suñu borom deeloon mu nekk fa dëkk foofa waaye yàlla dogal na ci ab ziar boo xam ne ziar si woon na ko sëñ bi xam naa teewlootuma at mi fee njarim njaarim ca la sëriñ bi nag ne ko dama laa bëgg a yóbbu ci dëkk bu ñuy wax kellel wala boog barab bu ñuy wax kellel mm-hmm. tegtal ko barab bi daal. xamal ko fi bare bi nekk ne ko ci gànnaarub Touba la nek wax ko itam ay mandarga ne ko boo ab lim eh, ci wetu gànnaar gi da nga gis gannu guy gu mak go xamna ni ak kadd aku dem ña nga ci penkom muy guy gu mag gu nat muy barab bi ñu taxaw tay gis que guy gi ni mu ma sha allah eh, dëkk bi naka am na téméré at te ñu koy sañ fa lañ ko fekk mu mel mu mel mu ne ko boo demee foofu mooy barab ba nga xam ne ci dégg goo xam ne ni Amadou Mokhtar dégg na ko ndigal moom delluwaatul ci Cilmaxa xanaa léegi moom waa kër ga ñoo koy fekk si waaye comme ko am na ndigal moom pour sanc moom di delluwaat sëñ bi itam boole ko ak Cheikh Moustapha ndax li ñu bokk ndax ñoo bokk lépp te itam bu leen fàtte ne itam euh, maam Fatma Waccit mi nga xam ne moo jur sëñ Cheikh moom la sëñ Tuubaa jël jox ko Cheikh Moustapha Ya joko eh, ko Cheikh Moustapha waaw soxna Fatma Waccit mom amul ma ko rëy jóg seigne Tuubaa ci bobum moko mo dox la ci war lepp ba jebal ko Cheikh mustafa ba am ci seigne Cheikh ak soxna khalifa donc loolu itam di benen mbir bo xamne euh dox na seen diggante ñoom ñaar xëy na ba ñu tax a loolu lañ ko ci doon laawaale rek kon Amadou moom delluwaatul ci ma dafa daal ñibisi wat dafa dal di wat ngir xol naka lay gisee bërëb bi nga mën koo sanc sëñ bi itam loolu yëpp ci ni ma ko doon wax ne ci wàllum stratégie am ci xool doxalin boo ko ci jàngatee da ko ci gis ndax nay rek ñu ngi ko sanc 42 mu Moustapha moo ko sanc 1942 indi fi ak njabootam ndax sëñ Tuubaa itam xam na ne itam bu sancee la fi amoon moo ko rëjee te njabootu sëñ Cheikh eh, ni ma la ko waxee léegi eh, buñ nekkee nay de amoon ko nekk fii loolu jàpp naa ne nga xamne da naka liñu sekk ay 3 km rek len leen da naka ben zone bi rek la lol dina la dalal xelu Nayde ña nekk Nayde muy njabootu Cheikh Moustapha gi ndax dañ xamne ne am nañu wëttal man lañu wax sax am nañu karangé ci fànn yépp ci walu zahir on na ci ba mom lu bok ci mom rek am nga karangé ak batil ay karangé saa yi amna ndax bu nayre nekkee ni kelal nekk nii jàpp naa diggante boobu moom eh, de de de ku cey dugg da nga xam no cey duggé ak liñ bokk lepp donc loolu wax sax mu am mo Mokho sancal ko fi ci Kelel jëp ah, bu ko bi itam 1925 la won ah bi ñu koy sanc itam nit ñu ko netalé ah, mbolo mu bari lañu woon Amadou Mokho ji and ak Cheikh mustapha ak mbolo ñu war ay fas ñan ñi di dox ñu ñu làng lu yaatu jege Touba jëm si ci gannaar bi di dox di xol mandarga yi leen bi joxoon di xol mandarga yi leen bi joxoon fuñ seen ak guuy rek dem nañ fi maanaam mbolem guuy goo fi seen rek dem nañ fi mais bu ñu ñëwee ba fii nag gis guy gi ni mu mel ak dayo bi ñu gis kaddu gi ci penkom ak dem gi ci lañ xam ne fii mooy bërëb bi leen sëñ bi doon wax ci lañ sippi ngir fas yéene nag màndargaal pour mën a jublu ci sanc bi man foofu itam saa yi ma fa yegg si damay wax ne tegtal gi leen ko sëñ bi tegtal man sax du ko jàppee wàllu wàllum baatin mais damay jàpp ne sëñ bi dafay ñëw ndax sëñ bi bi muy wër Touba pàkku Touba bi ko sëñ bi wër maanaam danaan xëy dugg ci àll bi bañ di ko wër kenn du xam fu mu nekk ndax leer gi da ko daan kii rek da koy xoymat fenn rek mu yaakaar na foofu la bu demee ba yegg yëg na du fii nga xam ne dañoo mujj di ko wër di ko wër di ko wër di ko wër kenn xamul fu mu nekk mu see ci biir àll bi ñu ko mën a waxee noonu man damay jàpp ne ci biir wër googu mu doon wër pàkk yi léeg-léeg am fu ko fu dara xooy man mu dem fa man dam ci sama dégginu bopp damay jàpp ne fii itam xëy na ñàkkul ne am na lu fi reflété mu ñëw doon xool ba xam fii la bërëb bam déet bi mu ñëwee mu xàmmee ne fii daraa ngi fi mu xàmmee ko ci saayir ndax guy gi ndax dama jàpp ne moom xam nga xam ne ak guy ak ak ak dem ak kaddu ca kanam man loolu dama jàpp dafay teg tànkam rek waaw man man am na ñu jàpp ne sax mbirum baatin la waaye man mbirum saayir laa ko te damaa jàpp ne dafay ñëw mm-hmm. xam ne fii daraa nga fi pàkk bu tëdd la boo xam ne ni bu mu war a conserver la mm-hmm. moo tax mu denk ko Amadou Makhourédia man loolu noonu laa dégg noonu laa gise man naa am nag du noonu donc moo waral mm-hmm. Amadou Makhourédia bi ñu sippee mook Cheikh Moustapha ñu daal di jéem a nag xool nañu ñu taxawalee dëkk bi Cheikh Moussa moom xam nga day day daal wëññiku mm-hmm. bàyyi fi amul ak njaboot gi ñu xool nu ñu gore dëkk bi mm-hmm. yaakaar naa ne fii la mbir mi tàmbale woon ci guy gi ñu nekk ten ba ngeen di tudd yi léegi itam euh, Sidi Ndiaye moom Albouri moo ko fi gas ndax jamono yooyu dafa bëggoon a falu chef de canton mm-hmm. waaw bi ko bi nga ko waxee sëñ Tuubaa nag ne ko day euh, sancal naa fa Amadou Mokhreje bërëb bu ñu wax kellal te dëkk ba manqué na ndox boo ko fa bënalee ab ten rek saa yu teen bi bënnee rek mooy sag falu mooy sag falu nga xam ne fii la ñoo commencé gas teen bi mu doon gas mu metti itam waaw ndax ku mos a traversé fii rek koo mën a doon xam nga maa ngi ñëkk ñëw ñu amul sañ-sañ da futti ko dugg yi biir gas waaw noonu la ko jàppoo jàppoo jàppoo jàppoo ko ba teen bi bën bi teen bi bënee rek lañ ko nommé chef de canton te sëñ bi ne itam nee na ko ne doo folli ba doo folli ko ba baa ngay faatu doo folli ko baa ngay faatu te xam ne temps bi dafa bënn rek ñu fal ko chef de canton buñ ko falee itam noonu noonu ko sëñ ci baa wax itam folleekuwul ba nekk mag lool buñ ko indi leen leetaru euh, bi koy bi kii lettre bi nga xam ne daal mooy wane ko jeexal nga daal mm-hmm. bi ko administration bi indi moom ci la man du ma koy folleku kon lettre bii moom damay damay day firndeel rek ne man pare naa la mm-hmm. damay damay damay damay damay wujj suñu borom waaw ndax moom sëñ bi ne na kon doo ko kon lettre bu koy foll bu ñëwee moom day jàpp ne moom kon waxtu waxtu faatum daa rek nga xam ne jàpp naa ne euh, laataa ñuy lijjanti naan diwoo koy wutoo keneen a ko wuutu moom ñu jëno suñu borom tabaraka wa taala comme ni ko sëriñ bi waxee woon loolu lépp bokk ci ay kéemaan yoo xam ne ci kéemaan dëkk bi la donc kon mag ngi noonu lañu doxe euh, doxee ñu jógee fi yaakaar naa bi ñu wàccee fi ni ñu ko waxee doxantu nañ tuuti ci dëkk bi xool bu ñu duggee ci kër gi fii am na robine bassin bu nekk fi nga xam ne Mamadou moo ko fi gasoon euh, foofu wax nañ ne Cheikh Moustapha fi la jàppee bi mu jàppee ba noppi itam mu dox ab ay jéego jëm nii ci gànnaar bi ba tey bu ñu am na fu ñu màndargal foofu wax nañ ne foofu fa la jëlee takkusaan donc Cheikh Moustapha kon yooyu yëpp ay barab la yoo xam ne bërëb yu mat a barkeel la yu mat a barkeelu la yu mat a ziar la yu mat a xam la daal waaw mm-hmm. ah, ndax euh, gaa yu baax yooyu moom fu teg seen tànk rek mm-hmm. yemul ak fu ko tegut. rawatina nag bi ñu ko fi teg ñi nekk ci ndigal loolu kon lu daañ ci ñëw ci kanam xam naa incha allah kon daal ñu xam ne dëkk bi noonu la sosoo boo déggee tur itam nga xam ne tur Haalpulaar la suñ mbokk Haalpulaar yi ñoo fi newoon waaw nga xam ne ñoom ñaaree dégg yi ñoom lañu ñu wutal ay tur fi ñuy déeg Kellal déeg Nayre yëpp ñoom ñoo koy wutal ay tur donc kon tur yi loolu mooy mooy mooy mooy cosaan li waaye sëriñ bi itam soppaliwu ko noonu la ko bàyyi waaw noonu ma ko fekkoon ñaaree ñaare daana sañcul lay dëkk ba pare jox ko tur waaye dëkk bi moom noonu rek la ko bàyyi turu cosaan yi moom moom mu wéy doon Kellel waaw Kellel Diop Kellel yaa yaakaar naa. Euh, Kellel Pël mi ngi fi nga xam ne ñoom ñoo fi jiitu woon seen i ñoo fi jiitu woon nekkoon ci suuf si. nga xam ne ba ci administration bi sax boo fa demee bu ñu koy séparé dañuy def Kellel Pël ak Kellel Wolof waaw Kellel Pël Kellel Wolof fii lañ tuddee woon Kellel Wolof ndax ñaari Kellel yi moo tax donc loolu mooy cosaanu sanc bi euh, xam naa bu fekkee am na beneen laaj rek incha allah ki fas yéene cee wéel salaamaaleykum wa rahmatulah. ñoo lay sant bu baax si kàddu yi mu mel ni leeral nañu cosaanu guy gi ak kàdd gi ak déem gi nga xam ni wax nañ nekkoon na fi waaye daa nax saay ak teen bi nga xam ne Sidi Albouri Ndiaye moo ko bënnal Ahmadou Khourédia ba mu ko a la faru kon loolu bokk na ci cosaanu dëkk bi kon su ko defee dañuy daal di fas yéene àndandoo rek dem si yeneen yi nga xam ni ay jeexital la ñu fas yéene see defaat ay waxtaan aki i laaj asalaamaaleykum wa